ni ko limee sànq ci Senghor ba ci Macky Sall am ci ku doon liggéey ak ñoom euh, tey jii suñu borom def mu dëddu muy Bruno Diatta tey jii lañ koy jébal boromam euh, ana tey yan euh, kàddu yi kii nga mën a def ci ci Bruno. Bruno Bruno Bruno Diatta. déjà ni ko sénégalais di woowee rek doo dee kenn ko son excellence doo dee kenn ko monsieur le Bruno Diatta dina la won woyafam man yàlla dogal na muus nañu ci suñu métier dañuy faral di collaborer ak ñoom Euh, te moom ndeysaan daje nañ ci ay yoon yu bëre euh, ma gis ni ku woyof mos naa fàttaliku benn jour euh, dama toog sama kër ba 23 ba ay 23 heures minuit mu woo ma téléphone ndax dafa am benn ndaje bu waroon am barñi ba ñuy ba ñuy pose première pierre port ba dañu bëggoon ma nekk fa maître de cérémonie mu woo ma téléphone allo allo bonsoir ma ne ko ça va mu ne je ne dérange ma ne ko non mu ne ma c'est Bruno Bruno Diatta mënoon na ne c'est monsieur le ministre Bruno Diatta na ne c'est son excellence euh, ma ne ko wuy monsieur le ministre mu ne ma ça va bien Thierno ma eh, eh, écoute est-ce que tu as parlé demain noonu doon waxee cest que nit ku euh, woyefal lépp man ko am naa jot dafa bëggoon ñu dem repérage xool xool bërëb ba ba ma ñëwee ñu am rendez-vous ak à dix heures euh, finalement ñu reporté affaire bi après midi mu woowaat ma xamal ma ni après midi la ñu war a dem ma ñëw quinze heures ñu daje fu ñu waroon daje otoom bi ubbil boppam toog ca kanam te ministre gis nañu ni yenn sax ci gannaaw ngay toog nekk patron parce boobu moom mu ngi toog ci kanam man maa ngi toog maa ngi toog ci ginnaaw otoom ba euh, loolu marqué ma trop waxam bëriwul euh, feeñalul benn yoon ne ku jege ku jege président de la république la te fii ngay gis Thierno Amadou Sy bu ko Macky sa recevoir tey suba kenn du dégg euh, dama ko jege dama ko jege dama ko jege fekk xaa <laughs> jege woo ko fenn donc nit ku mel noonu bu ko Sénégal ñàkkee Euh, Sénégal dëgg dëgg dëgg moo ñàkk nit koo xam ni lu mu xam ci réew mi bëri na waaye li ma nekk def nii kenn mësu gis mu def man ak sama benn mag euh, Bélissi di expert bu rëy ci mbirum audiovisuel fii ci Sénégal di monument euh, amoon nañu projet def film ci moom mais sama grand Bélissi mu may seetaan ay at saa yu ñu joxe rendez-vous mu ne noonu attendé chaque fois ma ne grand bi non lii du possible du ko def mu ne non yàlla baax na nañ poursuivre rek. mais ba ni ko yàlla yóbbu musuñu def film boobu ci moom. su ma déggee mooy war nañu jàngaat ci moom lu bëree bëri quoi surtout homme politique yi jamono bi ak ak temps ak réew mi fi mu toll nii jëm ci. Hmm. war nañu jàngaat ci nit boo nekkee fonctionnaire nga décider nekk ci administration publique dafa am comportement boo am. nga foo ni euh, ki nga doon tudd sànq Sonko moomu bu yoroon comportement bi Bruno Diatta yoroon kon dina dina mën a ci administration. boo demee ba ñu dàq la ci administration ci ñàkk teggin ñàkk yar ñàkk ormal sa kilifa nga bëgg nga bëgg nekk njiitu réew ëllëg xam nga loolu coono la donc euh, boo nekkee euh, fonctionnaire da nga ko tànn nekk ko pour am kër Sacré Cœur euh, cité kër góor gi nekk ko pour am leneen da nga ko nekk pour dignité da nga ko nekk pour sa réew te Bruno Diatta loolu yàlla dogal kenn mos ko dégg ci dara. mosul puukare ci lenn kenn mosul dégg ni Bruno feeñal na président Macky Sall proximité président Abdoulaye Wade musu ko feeñal fenn boo ñëwee ci mak manifestation mu ngi def liggéeyam nu mu waree donc kooku dañ koy ñaanal rek suñu borom euh, yërëm ko euh, ñaan itam fonctionnaires yi ñun ñi dañu jéem a roy ci ñu ci ñu mel noonu gëm suñu liggéey gëm suñu bopp gëm suñu réew Euh, man li may wax sama gars ñi souvent ñi may àndal sama politique bi mooy euh, li may ñaan yàlla mooy li ñuy wax ci politique man ma bañ ci nekk maanaam pas parce que damay politique rek dama war a wax lu dëgg dama war a wax lu ma gëmul dama war a jëf wala digee loo xam ne mënuma ko donc nañu góorgóorlu ci loolu euh, su ko defee jëmub Sénégal kanam sunu njëriñ la ñun ñu ngi waaw li may tàggatoo rek mooy ñu gën a góorlu di tàggatoo ak euh, ñi nga xam ni nag ñoom laa bokkal liggéey bi te ma am sañ-sañ wax ak ñoom mooy euh, ñi ànd ak président Macky Sall euh, ma leen di gën a soññ nañu gën a ubbi seeni dënn xam ni dëkk bi am na ay nitu valeur nitu valeur nag moom boo ko bëggee am da ngay ubbiku mais bu fekkee yow jàpp nga ni toskare nga toskare boo xam ni wala ñàkk nga njëriñ ñàkk njëriñ boo xam ni ku ñëw sa place lay jël loolu sa defoo la donc góorgóorlu toogal fi nga toog waaye xëccal keneen donc loolu dama jàpp ni valeur la ci ci ci politique ndax président Macky loolu lay def lan moo indi Souleymane Ndéné Ndiaye lan moo indi Modou Diagne Fada lan moo indi ñeneen ak ñeneen c'est parce que ubbil na leen buntu yi na gaa góor góorgóorlu ñun xaaya son mouvement bis bu jot ñu ngi dalal ay nit bis bu jot ay nit ñoo xam ne sax ci APR lañ bokk c'est-à-dire que tey demal na baaji ci diaspora bi ay nit ñoo xam ne dañ dañ bokk biir APR ba pare man bokkaguma APR sama mouvement la yor ay nit ñoo xam ne dañ bokk biir APR mais chaque jour ñu ne ñu bàyyi naa maa ngi biir AES man leen bàyyiwu leen parce que ba tey ci Macky Sall lañ jëm ñun ñëpp mais c'est parce que gisatuñu woon seen bopp boo bokkee nit parti mu lay siis réunion du la ko yëgal xew-xew benn du la ko yëgal kooku bu que kanamee nga wut leneen feneen foo nekk donc tey nabaaji boo fa demee ay nitu APR ñoo ñëw toog biir xaayeesu di di di liggéey ak man te pourtant dañ jékki jëlee seen ay activité ci ci ci APR te yaakaar na loolu dina jàppale Macky tam moo tax yenn saa mouvement bu crédit bu existé mun na mun na jàpp ci lu bëri leneen li tam mooy damay saluer euh, président de la République li mu jël dogal créer ce qu'on appelle les délégués régionaux ñun maatam am nañu sunu sunu délégué régional maa ngi saluer lu mu def te ma rafetlu ko il y a quelques dafa jël téléphone am woo ma loolu sama euh, cest à que dama ni kon man li ma doon foog ci APR ndekete am na ñoo xam ne meluñu noonu. ma ne ko monsieur le ministre mooy Mamadou Talla euh, li nga def rëy na euh, ci man te itam dinaa la woon ne man liggéey rek a ma ñor ndax sama métier journaliste ma nekkoon ñàkkuma ci fayda benn yoon du ma dugg ci politique bi ñàkk fayda damay liggéey liggéey comme ni ñuy jaamu yàlla ndax liggéey itam jaamu yàlla donc politique bi defuma ko euh, yëfu euh, benn loisir rek boo xam ne damay ñëw di ci perdre sama temps non non dama ñëw pour liggéey te dinaa liggéey incha allah. mbokk monsieur Sy. jërëjëf kontaan naa. Euh, jërëjëf mbokki internet yi loolu moo nekkoon seen émission entretien ci Tawfekh Production ngeen di am ci YouTube bi ñu leen jox rendez beneen yoon incha allah. entretien di seen émission boo xamante nag Tawfekh production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxal na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loole nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh production mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi di 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wute tey mbokki internet yi bu leen ko tardé benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen au lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production